préfet Ndiaye ndax itam ku xam na ne temps yi toll nii jot amul ak ki nga xam ne moo fi représenté IEF ak CODEC ak directeur école yi fi teew yépp ak association parents d'élèves nga xam ne ñu ngi fi tey nag li ñu fi comme li ñu fi daan dajale li nga xam ne at bu jot commune Fass Cekkeen maire ak équipe municipale dañ koy préparé jëlee ko éducation loolu moo doon woote bi tey kon dañ doon ubbi rek jox préfet mooy président ndaje mi. damay nuyu euh, le maire ak son équipe di nuyu tamit euh, l'IEF ci sa mbaalu di nuyu tamit toute la population de Fass Cekkeen bi mu fekk parents d'élèves ak élèves ak tous les acteurs donc de l'éducation yëngatu ci dëkk li ñu tax teew fii nag mooy distribution euh, fourniture yi nga xamante ne tekki municipal bi moo ko jagleel euh, élèves yi yi waaye ouverture bi le 5. dafay wane rek ni le maire ak ñi mu àndal am nañu pas-pas am nañu engagement teel a jox seen bopp pour mën a concrétiser jëmbal concept bii ñuy wax ubbi tey dàng tey loolu moo tax ñu xar a euh, xaar seen tànk tubéy mën a livrer produit bi ko ñu ko yoyal mu doon la ngaa xamante ne que dañ lay si jaajëfal bu baax a baax a baax baax baax waaye nag bu ñu amee équipe municipale bi nga xamante ne que dafa jël éducation def ko une supériorité mooy wane lu mel nii donc dañ lay si jaajëfal baax a baax a baax a baax di ñaan yàlla vraiment li ngeen mën ñi ren yàlla nañ ci mat ay at bëri bëri bëri bëri parce que c'est pas une mince a nekk lu yomb ku ne xam ne nii génn xaalis pour réaliser lu nii si trois de la décentralisation bi yombal procédure administrative pour génn xaalis pour def lu mel nii yombul donc bu ñu un maire conscient ànd ak équipe municipale bu liggéey bëgg taxul dëkk mooy waral ñuy gaawantu mën a def lu mel nii pour ñi kat éducation kat lu ñu lu ñu am lu ñu amal njëriñ la maanaam priorité la donc da leen si jaajëfal bu baax a baax a baax di wax nag li parents d'élèves am ngeen sas sas bi mooy am ngeen ñi leen taxaw muy le maire ak son équipe li des mooy ngeen jëm pousse xale yi pour que le jour ji ñu mën a rejoindre salle de classe yi. la xale dafa war jàppale ay waajuram ci tool yi si liggéey bi waaye dafa bokk jàng jotee da nga koy bàyyi mu dem jàng donc loolu moo tax ñu yéen parents yi yéen waajur am ngeen sas. ñu mën a bàyyi xale yi les de la rentrée ñu mën jàng parce que bi ma fi ñëwee tamit ci dëkk bi xool naa les archives visité naa les archives te dafay wax ni département de Koungheul département la ba nga xamante ne parce que si wàllu éducation euh, IEF ak ñi ma àndal ñu ngi si def jéeg yu am solo. xool naa résultat yi ñun wax dëgg yàlla euh, inspecteur Mballo ak euh, Guèye ñi ma àndal wax dëgg yàlla vraiment gàcce ngalaama. def naa 24 ans de service si classe yi 24 ans de service si salle de classe yi donc jàngalekat laa lu nekk si jàng ma ñëwee si dëkk bi li ma njëkk a si archive bi bokk na si résultat école résultat département de Koungheul. ñu leen si jaajëfal bu baax baax a baax yéen mais tamit di jaajëfal moom les édu les éducateurs mais les yu nekk si département bi surtout nag ñi nga xamante ne ñu ngi fii si diwaan bii di Fass Cekkeen ou bien en général. di ñaan yàlla vraiment résultat yi gën a jëm sa kanam gën a yokku donc ñu ñaan IEF vraiment pour sa cap là gën a ñaaxaat euh, les enseignants. gën a ñaaxaat donc les acteurs de l'éducation pour résultat yi vraiment gën a baax si yoon bi sax mais da leen di ñaaxaat rek vraiment ngeen gën a continuer sur cette lancée euh, euh, yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla su ubbi tey jàng tey école ubbeegut mu indi fournisseur joxe ko kon def na waree fam ah, maa ngi gërëm nag directeur yi ndax directeur yi su ma tey salle bi ñoom ñoo ci ëpp ndax directeur yi tey si tey. fekkoon ne yàkkamtuñu woon njàngale bi kon bu ñu ootee du du waaye ba ñu ootee ñoom dañu fiy jiitu kon mel na ni ñoom njàng mi euh, toppatoo nañ li ñu leen wax bëgg nañ ko bu baax a baax euh, président CGI yi kon ñun ñëpp nañ góorgóorlu si njàng mi ndax njàng mi kat euh, am na solo maire nag bu defee nii ñun ñoo ci def ñun nag nañ fexe wax ci xale yi ñu génn ci kër yi dem jàngi comme ni ko préfet waxee tool jot nga ne sama xale yi dañuy dem ci tool yi ci leen ñuy dem ci tool yi wax dëgg yàlla ñu war a jàngi buñ tardé njàng mi euh, dootu jotati kon nañ waajur yëpp taxaw ci njàng mi bu baax a baax euh, di gërëm IEF ndax IEF il faut ñu di ko wéy di gërëm ndax may nañ ñu CM CM moom lañ doon jooy temps yëpp wax dëgg yàlla yàlla def na bañ may ñu CM kon léegi ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm bu baax ñu kon kontaan nañ bu baax a baax. di jaajëfal d'abord euh, sama mbokku jàngalekat yi ak parents d'élèves yi di leen nuyu di leen dalal kii ci Fass di dalal monsieur le préfet Ndiaye. ci présenté wu en même temps Cheikh Lo Fall ko dégg et directeur Fass-Cekkeen donc du lu waaye jotaay bii nii muy doon lu ñu tàmm du gis monsieur le maire ñu leen ciy jaajëfal bu baax donc muy seen wareef ngeen xam ko def ko kon dañ leen ci gën a jaajëfal parce que nit xam na wareefam te def ko donc suñu xamee ne éducation c'est une compétence transférée Euh, monsieur le maire El Hadj Mor que je remercie au passage xam ko bu baax a baax ba tax na tey monsieur le préfet bi mooy énième année bu ñu fi nekkee trois ans à quatre ans boo xam ne nii toujours le concept ubbi jàng tey monsieur le maire l'a bien compris à chaque fois à ce pareil moment moom fekk na ay fourniture am pare na ñëw na depuis ci mois de septembre peut-être il fallait attendre mois d'octobre pour que jàngalekat yi ñëw directeur yi ñëw ñu mën a def lii nii pour que dès jeudi incha allah ñu taxaw ci. ñu mën a seede ne ñi fi bañ fi nekkee ba léegi si wàllu njàngale monsieur le maire mosu ci des ginnaaw samay collègues yi mun nañ ma mun nañ ma temoin ci loolu buñ ne école tijji na xaw ma soxla yeneen compétence transférée mais li de éducation saa yi ne ko monsieur le maire nangam ci éducation mu taxaw ci commencé ci fourniture yi commencé ci essais yi ñu organiser ba ci examen yi ñu organiser da ci dugal loxo. donc ci kaw loolu wax dëgg yàlla ñu ngi koy jaajëfal mais mënuñ ko jaajëfal tam aussi te diñ ci jaajëfal ñi nga xamante ne ñooy bras technique bi ñoo ñuy ñoo ñooy suñuy kilifa yi ñoo ñuy accompagner ci mission bi di ñu encourager ba tax na tey monsieur le préfet ñu ngi lay seede d'ici à quatre ans tey ci commune d'arrondissement bu fa euh, bu Ida Mouride Fass Cekkeen toujours def ci mos di ràññeeku donc yaa ma doon tout à nga ni xool nga archive bi mais boo gën a boo ñu revenir waatee d'ici quatre ans wala quatre ans si ginnaaw Fatou Seye toujours mi ngi mi ngi mi ngi jël ndam li mi ngi ngi jël paie ci ci ci ci par rapport ak seen mbéy yi nga xam ne moo fi nekk ci résultat donc loolu nag dañ koy jaajëfalee eh, waa IEF ñuy accompagner di ko jaajëfalee les parents d'élèves ak ndong yi nga xam ne seen jàmbaarte ñu ngi koy sàkkute saa su nekk ak directeur ak enseignant yi nga xam ne ñoo doon nekk bloc di liggéey yooyu résultat yi. benn affaire boo xam ne presque ça a été un rêve léegi ça devient une réalité que IEF ba mu ñëwee ah man dinaa leen jox ñu ne déete waaye parents yi di jooy centre d' examen centre d' examen bi doonoon ay jafe-jafe lool parce que dañu daan takk fii ay charrette contrée bu ci gën a sori da def 18 kilomètres pour mën a ñëw passer examen deux jours à de avec des conditions yoo xam ne nii même élèves lu ñu ci jàmbaar jàmbaar. gën a taxaw place donc loolu aussi gis nañ ni kon am na si njëriñ bu baax. ba tey troisième mbëbër mu desewoon tey muy seem bi ñu ngi ciy sant yàlla ñu ñëpp di ci gërëm yàlla suñu borom mais di ñaan yàlla aussi mu doon loo xam ne njëglaay la ci dëkk bi ak élèves yi parce que seem bi tamit dañoo rendre compte ne parce que ñun bokk nañ ci combat bi pour ñu am seem mais dañoo rendre compte ne ne seem bi aussi lii gën a càmbar jàng xale di koy gën a dëgëral si lay bokk wax na ko léegi chaque année monsieur le préfet dañuy am ay élèves yoo xam ni dañuy bokk ci ñu gën a yaakaar yuy bàyyi faute de tuteur à Koungheul mbala ay conditions yu difficile kon na suñu demee ba am CM bi ce budget là donc vraiment ñu leen ci gën a ñaax pour démarrage bi gën a gën a gën a effectif mais aussi ngeen gën ñu si gunge. bala ñoo jéem a def dara dañoo sukkandiku ci enseignants yi ak directeurs yi ak seen collègue ñu defal ñu li ñuy tuddee expression de besoin ñoom ñoo ñu indil seeni bëgg-bëgg ne ñu lii lañ bëgg pour ngeen jàppale ñu ci ci wàllu njàng yi ci loolu nag danañ jël classe bu nekk. élèves ya fa nekk liñ am ci ay articles buñ jëlee classe CI chaque élève am na un ardoise am na un cahier double ligne am na un cahier dessin am na un cahier 48 am na un bic bleu un bic vert un éponge ak crayon couleur ak crayon noir ak benn règle muy classe CI bu ñu jëlee CP chaque élève am na un ardoise am na deux cahiers 48 pages am na un cahier dessin am na un bic bleu am na un bic vert am na crayon noir am na paquet crayon couleur am na un règle am na un éponge muy CPE muy CP bu njëlee C1 chaque élève am na un ardoise am na deux cahiers 100 pages am na deux cahiers 48 pages am na un bic bleu am na un bic vert am na un paquet crayon couleur am na un crayon noir et un règle bu ñu jëlee classe C2 yi chaque élève am na un ardoise am na deux cahiers cent pages am na deux cahiers quarante-huit am na un bic bleu am na un bic vert am na un bic rouge am na un kit géométrique petit modèle muy CE2 yi bu ñu jëlee CM1 chaque élève am na 3 cahiers 100 pass am na 2 cahiers 200 pass am na un bic bleu am na un bic rouge am na un bic vert et un kit géométrie grand modèle bu ñu jëlee CM2 bi sac élève am na 4 cahiers 100 pass am na 3 cahiers 200 pass am na un bic bleu am na un bic rouge am na un bic vert et un kit géométrique grand modèle lii mooy jëm mooy lu jëm ci wàllu élèves yi fourniture de bureau matériel pédagogique et autres articles pour les quatorze écoles maanaam fourniture yi nga xam ne moo jëm ci jàngalekat yi ci fukki écoles yi ak ñeent école boo jël am na colle blanche benn am na blanco am na rame am na drapeau am na ballon de football am na euh, agrafeuse am na géométrique am na siwo am na seize ak produit d' yoo xam ne moom la ñuy moom la ñuy entretien euh, école yi loolu mooy loo xam ne dafa concerner quatorze écoles yépp ci wàllu appui yi appui carburant pour IEF am na benn enveloppe de cent mille francs ak 10 rames papier pour pour IF appui fonctionnement correct am na enveloppe cinquante 000 francs pour ñu mën cee gën a sukkandiku gën a doxal seeni seeni activité UCC bi am nañ un enveloppe de 50 000 francs euh, appui service di jeune itam def nañ ko yëkkati woon nañ enveloppe bu toll ci cent cinquante mille jox leen lu jëm ci wàllu classe CPE yi itam préparé nañ leen ndax itam dañoo jàpp dañoo xaw a am njuumte foofu dañoo def programme cinq classes CPI e mais heureusement six classes la loolu nag su ko defee CODEC yow ak ñi ngeen ko seqal ngeen xool nu ngeen koy gérer euh, comme bii passé na xanaa beneen yoon incha allah ñu xool nuñ koy saafara six classes e yi lañ am mais heureusement dañoo juumoon bi ñuy def suñ calcul. cinq classes lañ calculé woon ñoom itam classe bu nekk am na lu ñu ko prévoir buñ génnee ci biti dinañ ko gis mu ngi tegee. même CM bi nga xam ne yàlla def na ñu accepté ñu ko mu war a am ren am na lenn ci matériel bi ci ci fourniture yi loo xam ne préparé nañ ko pour CM bi ñu mën cee démarrer seen seen seen seen seen jàng donte la bokkul woon ci suñ euh, programme bi ñuy def suñ bi ci suñ budget euh, fekk ñu ngi jéem itam incha allah de toute façon année bii ñëw bu ñuy def suñu débat d' orientation budgétaire ñu fexe même buy deux salles de classe ñu amal ko ci seen bi jéem ko ci def ci suñu budget danañ ko prévoir bu ci yàlla àndee. di wax ni ci wàllu éducation itam ins euh, ren préparé woon nañ deux murs de clôture muy Daaru Fana ak Kër Omar Bun di la wax ne travaux bi mu ngi en cours Daaru Fana presque pare na te buñ paree foofu ñu ngi ñëw ñu ngi ñëw Kër Omar buñ paree foofu itam aussi war nañ tabax deux salles de classe muy Tobène Malick am nañ yaqin bu wér ne incha allah bu ñu yàlla jàppale balaa année biy jeex travaux yooyu yëpp dana fekk mu mu pare bu ci yàlla àndee. am nañ itam aussi benn école boo xam ne école complet la muy Ndawen Saare Ñaama boo xam ne waa Azirut ñoom ñoo ñu ko dig ñoo pare pour tabaxal ñu ko muy deux salles de classe ak mur de clôture kon lu jëm ci wàllu éducation équipe maire ak équipe municipale am. lii mooy loo xam ne moom lañ ci préparé woon di sant nag di gërëm bu baax a baax suñu collègue ak suñuy directeur ak suñuy enseignant ndax gis nañ seen taxawaay ci wàllu njàng bi toujours bu ñu waxee rek dañuy jël cant gi delloo ko ci maire mais d'accord waaye maire day def wareefam ndax ñun njàng dafa bokk suñu suñ priorité te itam xam nañ ni ñi ñu ko seqal itam li leen war vraiment ñu ngi koy def ndax gis nañ ne jàngalekat yi ñu yàlla sa wërsëgal gisuñu ci kenn koo xam ne day foye wala day sàggane liggéeyam parce que nag liggéey lu ne mën naa fel ba mu des njàngale jàngale moom loo jàngale ki nga jàngal loola lay tari kon boo jàngalewul mënoo fexe ba ñàkk jàngale say élève mën a tari lu mokk loolu mënut a nekk lu ne nit mën na ci tappale ba mu des njàngale kon liñ jàpp ñun mooy yéen a ngi def seen kéemtalaay kattan te kenn ci yéen jàngalul doomam suñuy doom ñun ngeen di jàngal suñu njaboot ngeen yore di leen jàngal kon ñun lépp luñ def dañ ko war a def kon ñun ñoo leen war a sant war leen gërëm es nel ñu boole ñu ñu nekk suñu biir commune wax dëgg yàlla kontaan nañ ci ñoom mbir mi fu mu yegg ñoom ci ñi ko fa yeggale lañu bokk kon nañ gën a rafetal seen taxawaay gën a mobiliser population bi waaye itam aussi di gën di waxtaan ak parents yi ngir ñuy gën a bàyyi xale yi ñuy dem ci école ba te bu ñuy dem ci école ba itam ñu leen fay bàyyi ñuy continuer di jàng li jëm ci wàllu éducation yëpp 6 millions 998 mille 500 waaw yéen itam Maxtaar ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax yéen moom suñuy partenaire ngeen suñuy wëllëre ngeen vraiment ñu ngi leen sant di leen gërëm euh, xibaar Bambou Free Info ak rajo Koungheul. teewal xam ko muy su nekk dama si teg le maire de la commune de Fass Thiékène discours bi représentant wax léegi di monsieur Gaye wax dëgg yàlla léegi ba muy teg moom parce que daaw ñëw naa fi animation forum femme moom laa fekkoon te béykat na koo wóolu parce que maire su ko wóolu ba teg ko fi parce que loxoom set na tàmbalee sama kàddu ci véritablement rafetlu lool geste bi maire bi loolu day firnde rek faru ak taxawaay ak yéene bu nga xam ne nii autorité territoriale yi am nañ ko si askan bi leen parce que soo jiitoo nit gënoo ko mais yaakaar tax mu te yaakaar boobu yàlla bu mu te lii firnde na ne yaakaar bi yàqee ko parce que tey yàlla mbir mi ñëw na à son heure par exemple les les choses sont la chose ko soxlaa xooli bi parce que ñaari fan su soobee yàlla élèves nañ delluwaat ci ci daara yi jàng donc ndongo yu di dellu ci di jàng fekk lañ war a jàngee lépp nekk fa tey gën a yombal jàng bi que am na ko wax léegi ñu ngi si acte trois de la décentralisation te éducation compétence transférable donc collectivité territoriale yi lañ jox léegi nag jox éducation mais ñëpp xam nañ ne nguur mooy mu leen war a toog dëgg dëgg dëgg yëpp amu ko donc ñoom foo ñu defi pexe pour leen nguur gi jox ñu jëm see yokk pour mun a def yu mel nii il y nag su demee si waar wa def na wàllam. waaye waa góor moom fajul métit waaye yokk na nguura donc maire jërëjëf te waa góor li ngeen def rafet na. pour euh, présider donc la traditionnelle euh, remise de fournitures aux élèves. donc avant de répartir euh, donc sur les idées. je vais d'abord me présenter parce que je viens de venir ici à dans l'arrondissement de Mouride. Je viens de Richardol. Je suis ici donc depuis trois mois, ou bien deux mois, trois mois et quelques, à l'emplacement de M. Salim donc, qui est parti à Bogol. Donc, c'est très heureux de venir ici donc, présider donc, euh, la cérémonie donc, de remise de fourniture. Euh, je remercie donc auparavant euh, le maire et son équipe, mais aussi l'IF, M. Gay et M. Malo. qui m'ont accompagné donc, pour euh, donc, la cérémonie. Je que euh, la remise donc, euh, de ce matériel-là est venue parce que ce n'est pas une mince Le fait de, de bloquer autant d'argent pour permettre donc, aux enfants ou à la population donc, de passer de euh, matérialiser ou de concrétiser Euh, le concept ubbi tey donc jàng tey donc ça c'est pas une mince affaire on remercie donc euh, le maire qui a voulu donc euh, une gymnastique financière pour décaisser donc de l'argent et mettre tout cela donc au service donc des enfants de la commune de Fass En tout cas nous sommes heureux nous sommes vraiment très heureux donc de venir et de présider donc cette cérémonie. nous lançons donc un appel aux parents d'élèves donc de libérer donc les enfants pour que le 5 euh, qu'ils puissent donc libérer donc les enfants pour qu'ils puissent donc aller à l'école. Donc cela permettra donc euh, aux enseignants donc de mieux euh, euh comment dire encore euh, parler donc, donc du, du, du du quantum horaire, donc c'est respecter le quantum horaire. Parce que tant que les élèves ne sont pas là, donc le quantum horaire donc, ne pourra pas être respecté. Donc nous lançons donc un appel aux parents de libérer donc, les élèves pour qu'ils puissent être là donc, le 5, ou plus tard donc, le 5. Vraiment, on est content, on est vraiment heureux donc, de venir donc, présider donc, cette réunion. Donc nous remercions donc l'équipe municipale, nous remercions, nous remercions du moins donc, toute la population donc, de Passé et Inch'Allah, on leur dit donc de maintenir donc le cap, vraiment tout faire pour euh, euh, faire de l'éducation une surpriorité.